ziar ñëpp ñu ànd di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi tey Sénégal xool ak xel yëpp wutali ca Bafoussam ca Cameroun ak sunu gaynde football yi war a daje tey ak Malawi enjeu bi mooy gagné ngir qualifié direct ci euh, jongante yi entraîneur bi nag Aliou Cissé euh, borom bi def na jàmm ba mboolem ay joueuram ya woppoon euh, ña nga ca groupe ba wér nañu rax ci dolli it mun na compter ci gardien bi gën a ràññiku ci àddina FIFA moo ko jox raaye bi doomu Sénégal bi kon di Edouard wàllu xibaar bokk na ci te douane bu Sénégal bi teg loxo euh, lu jëm ci ngànnaay yu yu am solo ngànnaay yoo xamante ni valeur ñetti milliards la daanaka ngànnaay yi xare euh, ubbi nañu enquête nag ngir xam euh, gaal googee ba bitim réew fu mu jëmoon nag yooyee ngànnaay wàllu xibaar bokk na ci it ak rentrée cour des tribunaux tey ci suba ci teewaay ak njiital président de la république Macky Sall dinañ ca waxtaanee réeróo yi ci wàllu suuf ak nees mën a def ba doxalee loi bi ci fànn woowee forum du justiciable la Babacar Ba ne bu nu sañoon jëm ci wàllu euh, domaine national ngir njariñal ci misaal baykat yi waaye it euh, investisseur privé yi ci technique bi Abdoulaye Diop. Sénégal Malawi tey ci ngoon bu ñeenti waxtu jotee ca Bafoussam ca Cameroun euh, ngir kon qualifié direct faw Sénégal daal di ca am ndam ci jongante boobee waaye it euh, li nga xamante ni ñooy supporters yi ci seen wàllu bopp ñoom rafetlu euh, ni Aliou Cissé demee bi yoon ci boobee jongante ak mbooleem ay kàngamam ci tanière bi ñenn ci yooyu reporter walay supporter ngeen baal ma ci reportage ca Guédiawaye bu Oumar Mbow. gaynde yi war nañu moytu bu baax a baax. il faut que vraiment gars yi def passif jof dem jom dëgg dëgg dëgg dëgg. def ko match guerrier guerrier comme ni ko maam yi daan defee démb ak barki démb. football ñu ngi naan c'est scientifique mais liy gagné du scientifique mën na dugg ci détail bu ndaw a ndaw. amatuñu lay. Euh, équipe bi ñu commencé ba tey dañuy ne cadre yi commencé ñëwaguñu dem suba la ñuy ñëw incha allah te xam nga booy seet football dafa am temps de jeu. bo loo ay ay boo toogee lu yàgg footballoo boo dugaatee du mënul nekk ki nga xam ne ki même boo yaa ko gën a aay bokk donc loolu lu am solo loo xam ne war nañ ko bàyyi suba. comme que loolu ñooñu léegi ñë ñëwaat nañu euh, wax dëgg yàlla Sénégal yëpp mu ne nii. am nañu yaakaar ne daañu gagné. ci ab mbedd ñu fekk yile ñaari per de famille toog di seetaan match Cameroun Cap Vert ci seen i téléphone. may canal yor aussi ñoo dama dama téléchargé euh, RTS. bi ñu sukkandikoo nag si ñoom dañoo war a gagné bi les match ngir rek xamal àdduna bi ne Sénégal jógewul fi mu nekkoon. xale yi tamit def ci seen bopp ne euh, ñoo ñooy numéro un ci Afrique depuis xaw ma ñaata at léegi. au niveau mondial tamit sunu classement baax na. mais fi ñëpp Sénégal doon doon ñu xaar kenn gisaguñu fa te booy xool sax ñu bëri sax. ñu ngi reenaan xoolal ñii la ñu wax sax donc man yaakaar naa suba xale yi dañoo war a dëggal seen bopp. taxaw ne attention gaynde yi ñëw nañ jox nañ leen li war ci ñoom ñëpp pour ñu vraiment ñu ak ca moytu li dal Algérie digganteem ak Guinée équatoriale bi ñu sukkandikoo ci bile citoyen bu ñu naree jouer scénario boobu rek vaut mieux ñu toog bi coupe de Afrique bi tàmbalee ba léegi gis nañu ay équipe yu mag nekk ci ay jafe-jafe loole waral nag ñu bëri jàpp ne équipe bu ndaw amatul équipe yëpp ñoo tolloo muy Malawi di Guinée équatoriale di Algérie RFM Guédiawaye Omar Mbow Omar jërëjëf euh, mu Sénégal ndamu équipe nationale bu entraîneur bi waaye rawatina kii di Edouard Mendy euh, kenn ci góol yu équipe nationale football bu Sénégal moom Edouard Mendy la FIFA joxañ ne euh, gardien di góol bi gën a ràññiku atum 2021 ci àddina muy ndam lu yaa ci moom di lu mu rafetlu bu baax a baax ca Cameroun Georges Déthié Diop jokkoon na ak douzième gaynde yi seen njiit Seydina Issa Laye Diop rafetlu nañu Aliou Cissé ak yorin wi ñeel gaynde yi ak ni nga xamante ni mooy yaakaar gu nu am su ngoonee suñu digg ak Malawi Seydina Issa Laye Diop ak ci Diop. deuxième ngeen day rafetlu état d'esprit bi nga xam ni moom la coach Aliou Cissé ak Lions yi àndal pour préparer match bi contre Malawi tey ñun nag préparer nañ ko préparer bu am solo. dèjà ñu ngi ni taxaw di xaar caravane bi nga xam ne ni mi ngi war a jógee Yaoundé Douala ak yeneen région yëpp pour ñu bokk àndandoo préparé def mobilisation bu am solo dem gunge gaynde yi ci stade bi ndax waruñu si wéet séance d'entraînement yi nga xam ne fekke nañu ko information yu baax yi nga xam ne am nañ ko si côté staff médical ak gëm-gëm bi joueurs yi àndal moo tax ñu am xel mu dal ni incha allah tey yàlla dinañu may ndam moo tax ñu booloo encore bokkaat si plateforme mobilisation bi ñu tuddee Sénégal manko uti ndam li ndax bu ñu booloo nekk benn dañuy gën a fort gën a am doole te su boobaa kenn duñu réussir suñu kanam match beneen bi tey ci ngoon Guinée ak Zimbabwe ñu fàttali ni Sénégal ak Guinée ñoo tollooy poñ ku ca ne ñeent nga am ci groupe bi Malawi mooy ñetteelu place ba ak ñetti poñ Zimbabwe amul benn poñ euh, Sénégal ak Malawi ngoon ñeenti waxtu euh, ñu ñaanal sunu gaynde yi seen entraîneur Aliou Cissé naka noonu ndax mooy ñaanal sunu bopp Sénégal ngir ñu siggi bu ngoonee sunu digg ak Malawi ca Bafoussam RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom benn minute. pour man RFM leneen ci xibaar ak RFM douane bu Sénégal bi teg loxo lu takku ci wàlluy ngànnaay ngànnaayi guerre daanaka ci pooram Ndakaaru bato ba nu ko fekk bu baw bitim réew wala ru ñett ci milliards enquête ubbiku na ngir leerlu ci eh, ci bataaxal lañ ko xamee douane bi Mamadou Oumar Ba moo nu ko jàngal. RFM rajo bu waa ci leeral jëm ci ngànnaay yu takk yooye ñu teg loxo ca pooram Ndakaaru baloru ñetti milliards ngànnaari ngànnaayi Ba lépp mi ngi jóge ci ab contrôle bi ñu doon def agent yu douane yi fare ci wàllu géej gi am xel ñaar ci document yu ñu leen jox waaye li gën a tey seen xel mooy wax ak tontu yu teguwul yu leen capitaine u bi doon tontu waral ci njàppaleem brigade bi nekk port ak unité mixte de contrôle des conteneurs ñu dugg ci biir fouillé fekk fa ñetti conteneurs yu yab ba fees dell ay armes feteel ak yu xeetoog yooyu muy sax yi nga xam ni day dem ci guerre yi biñ ko xaymaa nag ëpp na ñetti milliards ci suñu koppar génnee ca poor googee équipage bi nag bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ñu ngi leen di déglu ngir enquête bi. jërëjëf Mamadou Oumar Euh, audience solennelle rentrée cours et tribunaux euh, tey jii euh, lay am incha allah ci kanam tuuti bu atab ren bi 2022 ci njiit ak teewaayu njiitu réew mi président Macky Sall ren nag li ñu ci waxtaanee ci boobu en rentrée cours et tribunaux mooy wàllug réero yi faral di am ñeel mbiram suuf ak nees mën a def daal ba doxalee loi bi ci domaine national ci kaw bëccëgu tey gi ak moom même ndaje forum justiciable addu ñoom bu nu sañoon ñu ne ñu daal di indi yeesal di réforme ci loi ci domaine national. ba nga xamante ni béykat bi dina ci gis boppam ci suuf soosé collectivité territoriale na ko noonu waaye investisseur privé bi njiital boobe mbootaay forum du justiciable Babacar Ba ak Georges Déthié Diop. ay mardi janvier euh, ci la tenir li nga xam ni moom la ñuy wax audience solennelle euh, de la rentrée des cours et tribunaux donc euh, ren ñu tànn benn thème boo xam ni dafa laale ak lu ñuy wax la loi sur le domaine national ak conflit yi nga xam ne tey moom si ci occasion nationale li ko taxoon jug nag bi si njëkk mooy fexe naka la ñuy def ba mettre en valeur les terres du domaine national ba nga xam ne ñi nekk ci communauté yi ñi nga xam ne tey ñoom ñooy utiliser les terres du domaine national muy baykat yi par exemple naka la ñuy def ba suufu domaine national mën leen jëriñ bu baax a baax parce que foofu dañu bëggoon xeex ñi nga xam ne tey ñoom ñoom la ñuy wax les grands investisseurs ñoom la ñuy wax les grands propriétaires ba a utiliser les terres du domaine national au détriment des paysans ak ñi nga xam daal ñoom ñoo ñoom ñoo fa dëkk mais gis nañ que ne effectivement la loi de 1964 dafa posé ay limites dafa poser ay limites déjà bu ngeen xoolee le contentieux foncier dafay dafay gën di yokk moo tax déjà ñun ci occasion bi ñuy demander état du Sénégal à ce que nañu réformer li nga xam te moom mooy la loi sur le domaine national def de telle sorte que loi bi mën a favorable ñi nga xam déjà mooy les paysans les collectivités territoriales ak également les investisseurs privés mais aussi ñuy wax état du Sénégal surtout na encadrer anam bi nga xamee ni noonu la ñuy affecter les terres du domaine national donc loolu dafa nekk lu solo loolu je pense que ni point la il faudrait que ñu encadrer ko les terres du domaine national ba parce que loolu dina mën a euh, barrer la route à ce que ñi nga xam tey ñoom ñooy caxat-caxatee euh, les terres du domaine national euh, xalaatab njiital forum du justiciable Babacar Ba boobee sabab bi mooy ndajam tey mi ñeel rentrée cours de tribunaux ci kanam tuuti ci suba lay doon ca cour suprême ëtt bi gën a kawe ci réew mi président Sall kuy jiite incha allah RFM dina ci ànd ak yéen jamono yi juróom-ñetti waxtoo tegal fukki minute. ak RFM kumpa ñu waxtaanee wàllu koom-koom ak euh, jëb yi di marché d'intérêt national ci jam ñaajo euh, fi léegi diir nag ñu xam njëg yi li nga xamante ni mooy place yaak euh, nees ma def ba jote ca directeur général bi moo ko xamle ci ngan gu fa bureau national UNACOIS doon amal UNACOIS yeesal sàkku na ci ñi nga xamante ni ñooy privé bu Sénégal ñu yëglu ñeel marché boobee di marché bu dëppoo lool ak jamono bu valeuru juróom fukki milliards ngir lu koy gën a doxal ñu dem tëngee jëkk Abdou Diouf Diagne ñu daloo ko ci weeru décembre 2021 marché d'intérêt national bi nekk jam ñaajo ba néega ni bureau national bu UNACOIS yeesal bi nga xam ne dafa demoon nag daal di xool marché boobele di ah, xam ne da dañuy ñëw fii wàcce ko fii oto yu ndaw yi jël ko yóbbu biir Dakar wala yóbbu ko feneen fu mën di nekk fii jege na aéroport bu demee ba fonctionnel euh, lépp loo xam ne dañ ko ñor la Sénégal dañ ko mën a denc fii conditionnement bi ñu def ko fii après luñ ci yóbbu bitim réew ñu yóbbu ko lu ñu ci yóbbu ci biir réew ñu yóbbu ko fii ak ay fan nag dinañu xamle njëg li nga xam ne nag moom la ñu luyee bërëb yooyu le bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs Abou Mbaye yàggul dara dinañ ne ku doon laajte faal yi ngoyongo fin janvier au plus tard am na ay experts yu ñu jox ñu xalaatal nu prix yu nekk un peu sur le terrain nan la waaye ñun nag ñu ñëw gën a wàcc parce que ñun comme que askan bi nañu liggéeyal suñu liggéey du am koom-koom bu bëri waaye koom ndax lu taaru li dafa am lu koy doxal te doonoo investir état pour war a delloo ak marché bi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy bay yàqu-yàqu yi nga xam ne nag dañu ko daan jàmbat ndax ñàkk bërëb bu ñu denc li nga xam ne moom lañuy bay dina wàññeeku bu baax a baax RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne jërëjëf Abdou Aslëf ci politique ak tontu bu Cheikh Issa jëm ci Ousmane Sonko mi ko tuumaloon wàllug alal ju lewul euh, ci kaw campagne bi ñeel wootee gox-goxaan yi euh, moom mbërëb coalition Benno Bokk Yaakaar ci commune bu mbuur euh, benn la mu indil nepp tontu njiital Pastef Ousmane Sonko mooy mu wax waa Sénégal kan mooy Juliana mu ne ba ci topp na leeral ay kopparam alalam fu mu tukkee ci lu ko liggéey mayul ci gis-gisam moo gën mu ne muy wër Sénégal di waxi safaan kii di Issa tefes bu Mbour ñu teewlu ko quartier tefes Abdourahmane Diallo. Cheikh Issa Sall daal di tontu Ousmane Sonko muy wax njiitu Pastef moo jël ndaare seeni promotion te lenn waralu ko lu dul topp soxna su tudd Juliana. waaye deux ans examen yi tàkk devoir yi tàkk comme moom du jàng lu dul wër di taxawaalu te si taxawaalu boobu dinaa si ñëw parce moom bëgg naa mu wax Sénégal yi kan mooy Juliana. leen jàng dafa fiir jàng dafa fiir leneen loo ko boole rek day yàq Juliana moo tax ngóor si demee bay rek examen la sorti mu jël munti candidat coalition Benno Bokk Yaakaar commune bu Mbour di yokk di xamle ni njiitu Pastef li muy wone ni nit ku jubla dara amu ci te nanguwul a liggéey 2015 tey liggéeyul salaire u député la am te du membre bureau te oto bi muy dawal muy 4x4 Lexus blindé mu ngi jar ay 156 millions kuy dawal oto 156 millions te amoo salaire bu mat 1 million 300 weesu woo ko war nañ la laaj fan nga loolu te yor ñaari jabar ay kër jeex. Cheikh Issa ne Sonko na xalaat campagne ci Ziguinchor looloo gën li muy wër di sosal ay nit RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane. RFM Sport. sport gi tey ci àndal xaaj Ndate Diop. dal leen ak jàmm Sénégal Malawi di tey jii ci talaata ji bu ñeenti waxtu jotee foofa ca bafu sàmm di jongante boo xam ne nii Sénégal yi ñoo ngi koy xaar bu baax a baax waaye mën nañ jàpp ni Papa Gueye di milieu de terrain bu Sénégal nekk ca Olympique de Marseille te ci jamono ji sax mu nekk ak gaynde yi moom dina wéy di ànd ak gaynde yooyu ndax daan ga nga xam ni FIFA daanoon na ko ko ñii di waa tribunal arbitral bu sport daal di nañ koy dàq ci fàttali ñii di waa FIFA dañu daanoon lu toll ci ñeenti weer kii di joueuru Sénégal bi ndax nee nañu ñooñu dafa xaatimoon ak waa Watford ba pare bàyyi ko fa dem ànd ak waa Olympique de Marseille. jongante Sénégal ak Malawi bu tey jii gaynde yi la ñu bëgg moom mooy jël place bu njëkk ba ci seen groupe boobu loolu nag mën nañ yaakaar ni mën na nekk ndax Aliou Cissé ci jamono ji gone yépp yemb nañ ci kanamam ña tawatoon ñépp wër nañu. moo taxit suwar yi am yaakaar lool ni ndam rek la ñu gis waaye jangante boobu du nekk bu yomb ci ñoom ndax ñii di waa Malawi ñoom it ndam la ñu bëgg Soda caam di keneenu ndaw bu rajo Futur Media fekkee na conférence de presse avant match bu ñaari équipe yi ni ki démb. Sénégal war a jouer euh, jonganteem gu mujj ñeel phase de poule yi ni ki talaata ji digganteem ak wi lay doon di équipe boo xamante ni nag dafa daal di gagné matcham gu mujj di adversaire boo xamante ni itam dañ ko war a respecté bu ñu sukkandikoo ci défenseur sénégalais bii di Abdou Diallo ma nga xamante ni woon na ci conférence de presse d'avant match. on arrête que le niveau est très dañ bàyyi wax ni am na équipe yu ndaw ndax niveau bi euh, daanaka sorantewul ku nekk mën na gagné ku nekk loolu moo tax compétition bi am solo tamit may am mbégte pour jouer te Malawi yaakaar naa ni mérité na place am ci kaan bi dina xeex ñun tam pare nañu xeex ak sunuy arme moo tax ñu jàpp match bi comme ñu jàppee yenn ñi yëpp. tous les autres que seront en qualification John Benda di milieu de terrain bu équipe bu Malawi bi moom xamle na ni que ni Sénégal équipe bu mag la waaye nag am na yaakaar moom ak i ñoñam ñu am ndam ci kaw équipe bi nga xamante ni ñëpp dañoo jàpp ni ci favori nañu bokk. Sénégal am na équipe bu baax waaye nag yëf yi football la te ñun xam nañ ni match la bu am solo ndax suñu gañee mun nañ qualifier ci wiccam de finale bi moo tax joueurs yi suñu supporters yi ca dëkk ba ñëpp gëm nañ ni euh, mun nañu def li mel moo tax tamit man gëm naa ni vraiment mun nañ gañe match bi Abdou Diallo tamit di ñu xamal ni naam défense bi joué ñaari match yi défense bu baax la waaye it am na mbégte trop gis cadre yi dellu si ku ci mel ni Edouard Mendy ak Kalidou Koulibaly. pour être totalement honnête j'étais totalement confiant avec la défense qu'on avait. amoon naa confiance trop ci ak défense bi ñu amoon ci match yu njëkk ya ndax euh, gis nga ñu sax benn but léegi nag gars su ñëwaatee euh, day gën a yokk ndax am nañu ku mën a nekk Ballon d'Or Edouard ministre de la défense bi Kalidou kontaan naa ci nag trop. c'est parti. jogante Malawi Sénégal nag niki talaata ji lay doon bu 16h GMT jotee ca stade Omnisport bu Bafoussam mu ne woon Soda Thiam fii ci Bafoussam ngir radio Futur Media. ñu jeexale rek xibaari tàggat yaram yi ak lu soxal réewum Cameroun moom mi nga xam ni moom moo dalal lii di po yi di Coupe d'Afrique de Nations moom groupe A ba mu nekk moom moo ca jël pee qualifié tamit ci huitième de finale gannaaw tembo gi nga xam ni dox na digganteem niki démb ak ñii di waa Cap-Vert beneenub équipe ci groupe boobu boo xam ne tamit qualifié na di Burkina Faso ñoom étalon yi ñoom it danoo témboo ak Éthiopie loolu sax moom moo leen may seenub qualification ñoom nag am ñeenti poñ tollook ak waa cap yi nga xam ni moom it mën nañu yaakaar ab qualification ndax mën nañu bokk ci meilleur troisième yi FIFA The Best Edouard Mendy ñu tabb ko mu nekk gardien bi nga xam ni moom moo gën a ay ci atum 2021 moom góolub Sénégal bi di góolub Chelsea fële tamit ca Angleterre nga xam ni ci jamono ji mi nga gaynde yu Sénégal fële ca Bafoussam ci réewum Cameroun ngir amal lii di Coupe d'Afrique des Nations jiitu kii di Donnarumma ak Manuel Neuer Abdoulaye Diaw chroniqueur sportif ni lii dafa nekk ab injustice bu ñu réparé la waaye tamit dina nekk loo xam ne nii dina gën a ñaax Sénégal bi ngir mu def kan bu am solo ñu déglu ko. yàggul am na fi distinction bu nga xam ni. dañ ko joxoon beneen gardien de but. gannaaw bi ñu leen dajalee di seet. mais mani Edouard bu nekkee champion d'Europe déjà avec son club Chelsea en Angleterre. defe naa ni dafa di objectivement lu ko def ci kannamu gardien de but yëpp parce que rawante daw. ci jël premier. est le meilleur te lii rawante woon bi ma joxee information bi ma kontaan ci parce que jouegul woon ci Coupe d'Afrique des Nations bi il sera très attendu nous souhaitons que mu bañ bare liggéey ci Coupe d'Afrique des Nations bi parce que su gardien de but bare liggéey rek cela veut dire que dañ ko solliciter te buñ koy solliciter défense am xëy na daf ko protéger wul assez léegi nag distinction bi nga xam ni jox nañ ko ko dafa réparer but bi mu yelloo woon il y a cela te ñëwul moom la ñuy wax naan loo moom mun na guddee mais du fanaan àll ñu koy seenu ci match deme bi moment bu nga xamee ni Kalidou Koulibaly aussi dafay dellu si ci équipe du Sénégal bi moom laa wax ni Sénégal dafa barkeele li may wax Sénégal dafa barkelle moo di ñu ngay tudd ci wetu réew yu mag te gañeegul dara te defe naa ne xëy na lii c'est comme dit le tubaab un bon présage ñu mm-hmm. distingue que en pleine coupe d'Afrique des nations yal na nekk njëglaay ci Edouard. Mhm. njëglaay ci groupe bi ci lii nga xam ne ñu ngi ci ca Cameroun te Edouard di def sa première sortie kon di ko félicité te xam naa ne nouvelle bi su ko yëgee fanaanoo ko dana ko gën dolli doole ci li nga xam ne ci lañ koy seenu. gannaaw raaye boobu nga xam ni góolug Sénégal bi am na ko naka la ko gaynde yi gisee ci seen biir Youssouf Bodian ji kenn ci suñu ndaw ya ñu yabal ca Cameroun di ba dugaat ci groupe bi door entraînement yi gardien gaynde yi ak Chelsea moom lañu ñu fal mu nekk gardien bi gën a xarañ ci àdduna bi di raaya buy ñaax Edouard Mendy. je suis kontaan naa trop ci li ma jot raaya bi donte ni sax nekkuma ak sama njaboot waaye yéenay sama ñaareelu famille lu mag moo ñuy xaar waaye lii daf may gën a ñaax ma liggéey pare nañ pour match bi pare nañ itam pour li des ci compétition bi. compétition. Aliou Cissé di sélectionneur bu Sénégal jàpp ni titre bu mu yelloo la di ñaanal gardien bi am tiitre collectif fii ci Cameroun. c'est une première sur ci continent africain bi lii di am day tekki ni rek euh, africain dara jomm ko mën na bokk ci meilleur yi ci àdduna bi. trophée individuel nag lu baax la waaye dañoo war góor góorgóorlu nag léegi ba jël kaan bi moo ñu fi indi. collectif aussi ñu koy xaarandi ci campu Sénégal ci talaata bi suñu digganteeg Malawi di match bu am solo ci ëllëgu Sénégal ci CAN bi taxawaay gaynde yi ak seen gardien bi di Edouard Mendy ci compétition bi dina doon lu am solo saa yu ñuy tànn Ballon d'Or africain 2021 Youssouf Bodian Bafoussam RFM jageen jëf fi la ñuy ndarkappe seen xibaar yi tàggat yaram xaaj doo dem dañuy ànd ak yow xaaj ndate bi yoon ci wàllu cosaan bi daleen ak jàmm ban politique lañu mën a jëlee ci njàngalum Cheikh Ahmadou Bamba di turub téereb Serigne Khadim Mbacké Abbas cérémonie de présentation bi doon na ko amal aser ji ñu génn ci teewaayu ko suñu ndaw Lassana Koli bindkat bi di ñëwaat ci lu waral mu taalif téere bi xalaat bi mu ngi ma dikkaloon bi may jàng parce que dama dañ ma joxoon benn téere mais bind sa mémoire bu tuddoon la politique tirée des propres paroles de l'écriture sainte maanaam kooku noonu benn prêtre bu moo ko bindoon xalaat ci wàllu politique sukkandiku ci bible man boobu la ma idée bi di ko doon ma ne benn jour dina ñëw ma bind téere teg ko ci njàngaleem Serigne Touba mais politique bi maanaam nekkul politique ci politique politicienne comme ni ñu koy waxe mais politique la boo xamante bi ne doomu aadama ni ko yàlla bindee dañu wax ne nit kuy dund ci société la te société dafa war a tegu ci ay règlement ak ay principe léegi nag loolu naka lañ koy organiser loolu mooy politique ni ko ni ko ni ko ñoom Aristote Platon doon waxee mais nekkul politique boo xamante bi ne xëccoo nguur wala wut nguur ak rivalité yooyu noonu. ñu toll ci campagne électorale bu ñu nemmeeku ay coow téere bi ñëw ngir soññu askan wi ñu wax waaye tamit jëfe jàmm bu ñu sukkandikoo ci sëriñ Xaadim Mbàkke Abbas principe la boo xamante bi ne la non violence wala wàllum jàmm ci miir doxalinu sëriñ Touba principe la boo xamante bi ne c'est inviolable kon képp ko nga xamante bi ne ñun en tant que ay ñoo xamante dañoo am sëriñ Touba fii Sénégal war nañu mën a roy ci moom fexe ba suñu comportement suñu jëfin suñu lépp ñu teg ko ci comportement ni sëñ bi doon doxee ndax loolu doon tax Euh, situation bi nekk ci réew mi ci wàllu social wàllu politique wàllu lépp tension yi gën a wàññeeku nit ñu dund ci tranquillité ak ci jàmm ba mën a tabax Sénégal bi nga xamante bi ne moom la ñu bëgg Serigne Khadim Mbacké Abbas di ñu xamal ni téere bi professeur Souleymane Bassir Diagne préfacé ñu ngi koy tekki ci kàllaamay arab maison de l'oralité et du patrimoine Kër Leyti daal dinay ndarkàpp dibéer ji ñu génn festivalam bi mu duppee festival international des arts ñu koy wax fiyaawo kàddu maam woon nag ci njiitaluk docteur Massamba Gueye jaageen jëf ci déglu bi fi la ñu yem dig daje ëllëg. CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal seen savon yi di créole NSIA santé famille ak NSIA auto ak seen gamme Opalia ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf wasin ba dem tool fala Aliou Cissé kii waa këram toll suur soi nañu ci li wér péng ne gayndee Sénégal yi war a football seen match de poule bi mujj ci coupe d'Afrique bi ñaar rekk ca manaam mu di gagné wala gasax record yéen kay nañu fi ñuy séntu Lions yi tey ji moo di gagné Malawi jiitu ci groupe bi stade yéen kay nañu du loolee rekk moo wékku ci ndam li ñuy xaar ci gaynde yi ngoonuk tey ji seen digg ak Malawi am na yeneen yu ca ko làqartil mi ngi ñuy xamal ne Sénégal bu gagné Malawi ci ndam lu yaatu dana tax mu mën a dem ci huitième de a tax mu jiitu ci booba fa ñu nekk ba coupe d'Afrique bi tàmbale ak léegi mu di ca Bafoussam fa la ñuy desandi ñu des ba tey ci match Sénégal ak Malawi bu tey bi ak l'observateur mi ko xëyee ci xët mu njëkk la mu ca bind moo di lions yi ñoo ngi jëm ci opération lance flamme mi ngi ñuy wax moom l'observateur ni mu jàpp ne noonu la équipe bi war a tëddee ji mu di onze de yi ba di ñu wax ne góolub Sénégal bi di Edouard Mendy gagné démb góol bi gën a Sud Quotidien bind ci xëtamu njëkk ne mi ñu ne dafay bokk ci jonganteb tay bi Walf Quotidien mel ne ne ci xaw amuk jaaxle li tax moo di moom Kalidou Koulibaly ba mu gëjee football ak léegi def na diir ndax mi ngeeg physique wala rythme bu mën a tax mu football match tay bi tey journal Le Témoin li mu xëy ci xëtamu njëkk moo di bali fetal yu duwaañub Sénégal si siir ca porum Dakar bi nañu ci patrouille bu ñu doon def ci géej gi ca la ñu benn bato bu fekk munitions de guerre yu bari njëgam boo ko doon xayma daanaka dafay jege ñetti milliards vox populi nañu ci ñetti conteneur la fekk bali fetal ci benn bato bu ñu naan Eolika bato ba Guyane la cosaano équipage ba woon ca bato ba yëpp vox populi ne nañu jàpp nañu leen libération nañu ñeenti marin yu dëkk Ukraine ñoo newoon ca bato ba ñoom ñëpp la teg laxo jamono ji ñoo nga ñu tëye ci garde à bi tegal ñu ci xëtamu njëkk photo yu ñuy séenee conteneur yeeg bali ko ca waaye lu mu yàkkul Ousmane Sonko ci émission ba rek da koo fàtte Aliou Sall nee na Ousmane Sonko mooy yées itileer ci ak mbon Ousmane Sonko du wax dëgg àddunaam yépp di wër di duuralaate la heure bu ubbee gémmiñam tojaanga la cay wax Aliou Sall ne su ma gisee nit ku mel ne Khalifa Sall wala Malick di ànd ak genre yu mel ne Ousmane Sonko c'est décevant mu ne man maay kii taxaw ñàkkante ko Ousmane Sonko lu mu bëgg rek dinañ ca dem ndax Ousmane Sonko du nit ku a nuppalu 557 poste maire yi ci réew mi ñaar ñoo ci am mu di ay liggéeykat ak ay naxaatekat Abdoulaye Diouf Sarr candidat Benno Bokk Yaakaar ca mairie bu Dakar Vox Populi nee nañu marchand ambulant yi jox nañu ko bopp moom la ñu àndal moom la ñuy jàppale li leen Khalifa Sall dëgër piiroon ba muy doon maire bu Dakar bokk na ci li tax ñu wan ko ginnaaw journal bi di laaj ndax loolee marchand ambulant yi guuxal Khalifa Ababacar Sall du yàqal Barthélemy Dias ci Ndakaaru Bokk Yaakaar samp di seenub candidat di Zahra Iyane Thiam moo xëy di mi quotidien ma ngay programme bi mu tegal waa Sicap Liberté bay xamle ne amul sikki sàkk ci ne bu ñu génnee ci élection locale yi mairie bu Sicap Liberté ci loxoy Benno Bokk Yaakaar lay mujj dañuy gagné élection yi Vox Populi nañu kii di Maodo Malick Mbaye ma ngay wane boppam bu baax a baax ca Thiès journal bi nañu doonte investir ñu ko ma Maodo Malick Mbaye ne tête de liste waaye démb def na fa mobilisation boo xam ne mbooleem ku teewoon ca ndajama rek mobilisation beeg nit ñu takku ñeeg mbooloo mu bari ma fa newoon yéem nañu la njiital ANAMO gi di Maodo Malick Mbaye di xam ne ci journal bi ne nu mucc ayib askanu Thiès moo ko tax a sóobu ci te ci loole ne dafa jàpp ne Benno Bokk Yaakaar mooy espoir bi mu ne it centre de vote bi gën a mag ca Thiès ma nga ci diwaanam di ci cité Lamy moom Maodo Malick Mbaye sasoon na ko ngir Benno Bokk Yaakaar gagné ko ki perte mooy père de famille bi ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi benn père de famille la bu wut këram dajale fa ay xale yu jigéen ñuy jaay seen bopp mu ci encaissé wàllam CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal seen savon yu di créole NSIA santé famille ak NSIA auto